Toumani Touré la bu Mali Abdallah bu Mauritanie Mamadou Tandian bu Niger Moussa Traoré bu Mali yéen a kaay gi nee na ñeent yi jamono ja nga xam ne moom la dund yore woon seenum réew yàgg nañu leen a yàq musiba ak mbelengaan te nag bi ñu génnee àdduna gis nañ ne témoignage yu baax la def si ñoom waaye nag li ñu nemmee ko ci Sénégal ndeke moo law ba ci déndu Afrique booy dund lenn lu nekk mën nañu la koo wax waaye nag boo faatoo lu a wax a coup taskatu xabaar yi journal bi li mu gis mooy am ndëpp autopsie boo xam ne doon nañu ko defal communication politique bu Macky Sall ndax li ñu nemmeeku mooy Macky Sall ak mu àndal mënuñoo communiquer saa suñu waxee rek wax aw toj penc yéen kaay gi Mamadou Diop Decroix ak Moustapha Guirassy ñii ay député la ñu ñaawlu nañ bu baax a baax ministre yi nga xam ne ñoom ñoo wax ne dañuy janoo ak taskatu xabaar yi ndax député yi dañoo gis ne ministre yi bu dee am na ñenn ñu ñu war a waxal mooy député yi te ministre yi dañoo war a ñëw assemblée nationale expliquer yi moo gën ñu nekk ci mbedd mi bàyyi lii nag manque de respect dëggantaan la kàddu yi Mamadou Diop Decroix la ak Moustapha Guirassy yéen a kaay gii di laas nee na Macky Sall tànn na lu toll ci fanweeri nit ñoo xam ne maanaam ñoo koy défendre ñooy dem ci plateau télé yi ñooy wax ay réalisation ma am na ay ministre am na ay député am na ay directeurs généraux yéen a kaay gii di réew mi ko dëjee ñu xëy fekk fa Modibo Diop mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon ASER daat nay rafetlu gouvernement bu bi wax na ne famille libérale yëpp dañu leen a war boole wax na sax ne Karim Wade muy Khalifa Sall dañoo war a ñëw lëngoo ak Macky Sall daal mbir mi gën a yaatu gën a neex yéen a gi du source xëy na ci wax waxeet gi nga xam ne moom la suñu way politique yi dëkkee ci réew mi te dara du leen ci fekk dafa mel ni sénégalais yi ñoom seen bopp ñoo bëgg ay politiciens yoo xam ne dañuy wax ba mu neex leen ñu génn si ndax Abdoulaye Wade defoon na ko fi Macky Sall Idrissa Seck Moustapha Niass Ousmane Sonko Thierno Alassane Sall yéen a kaay gi de la nee na ci biir APR bëri ay ndaw yoo xam ne mer nañu ba maara day taal ndax dañoo gis ne Macky Sall leen a wor Macky Sall da leen a jëndee ñi nga xam ne ay transhumants a jeunes yi nekk ci APR bëri si ñoo xam ne ñoo ngi songu Macky Sall yéen a kaay gi de la quotidien xëy yóbbu ñu diiwaanu Géejawaay nee na foofee dafa am lycée bu bees boo xam ne maire Géejawaay di Aliou Sall daf koo tuddee Serigne Bassirou Bara waaye nag sa ndaje ma Aliou Sall dafa wax doomu Serigne Bassirou Bara bi na ko ñaanalal Macky Sall ngir mu am ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal doomu Serigne Bassirou Bara bi faalewul Aliou Sall yéen a kaay gi di Vox Populi dikk na ci feebar bi nga xam ne moom la ñu nemmee ko sa caaro yi na bëri na ñoo ni askan wi lékkatuñu jën naam sax ministre bi ñu dénk wàllu wér yaram gi wax na ne jën yi dara nekku si waaye askan wi ba léegi nanguwuñu ko lekk jaaykatu jën yi sonn nañ ba maara taali yi gisuñu ay client seen jën yi dañu koy wanteer dañoo lambale yéen a kaay gii di laas muy saar fan yi ñu génn dafa wax ne Sénégal amul benn accord boo xam ne signé na ko ak waa Espagne ngir ñu andi doomu réewum Sénégal yi nga xam ne ñoo jaar ci géej gi loole nag Boubacar Sèye mi nga xam ne moo jiite Horizon sans frontières daal dina koy weddi nee na muy saar ku ñeme yàlla la lii nga xamante ni moom lay wax waxi kasaw kasaw la ay kàcc ndax état bu Sénégal na ak waa Espagne ngir ku ñëw ñu man laa génn waat réew ma yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy na ci scandale bi nga xam ne mooy xeeñ ci ubbite pharmacie El Hadji Yare bi nekk ci cité Kër Góor gi yéen a kaay gi nee na Abdoulaye Diouf mi nga xam ne moo joxe autorisation bi dafa violé arrêté bu Cour suprême te loolee jaaduwul teguwul fenn yéen a kaay gi di Dakar Times xëy na ci wàllum télécommunication ak Expresso gi nga xamante ni nee nañu dañoo am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum koppar crise financière bu doy waar a doy waar moom la Expresso amee te soo moytuwulee Expresso si bopp boppam mooy daanoo am na réunion de crise boo xam ne defee nañ ko Dubaay critique yéen kaay nee na Macky Sall mu ngi lëmbat Aly Ngouille Ndiaye ndax plan Orsec bi nga xam ne teg nañ ko fi weer yi nga xam ne moom la ñu génn ci inondation yi Macky Sall daan nay sant Félix Antoine Diome ngir na koppar yi nga xam ne joxoon nañ ko Aly Ngouille Ndiaye ñu lëmbat ko ana fan ko dugal yéen a kaay gi di enquête ñu fekk fa professeur Ismaïla Madior Fall nee na candidat la ci mairie bu Rufisque ñu ko na ko élection présidentielle 2019 yu noo ba muy élection ci Sénégal daal ba a leer ci réew mi réew mi quotidien ñoom Guy Marius Sagna frappe France dégage ñoom nag daat nañu ñaawlu bu baax a baax accord de pêche yi nga xam ne réewum Sénégal signé na ko ak waa Union européenne la Sénégal nee na ministère de l'intérieur nee ñi nga xam ne ñooy dem ci géej ñi si ëpp ay mool lañ te loolee Aliou Ndoye daf ko weddi woon yéen gi di réew mi quotidien ñu koy fekk fa Seydina Aboubacar Sadiq Ndiaye mi nga xam ne mooy directeur des bi nga xam ne ma ngi koy def ngir mois de octobre bi ñu jagleel consommé local wax na ci solo si nga xam ne consommé local am na ko ak taxawaay bi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall amee na ko si stade yéenekaay xëy na si Diego Maradona mi nga xam ne génn na àdduna yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum football jamono ji ci dëj la ñu nekk yéenekaay gi di sunu làmb xëy na ci Balla Gaye numéro 2 ak xarañteef gi nga xam ne moom la amee ci làmb ji nee na fukki at ak juróom la def carrière ñaar fukki at ak juróom benn bi mu koy am la nekk roi des arènes bi wax na ci Balla Gaye 2 ne moo aay ci mbër yi nga xam ne